tuñufina ngubu mu jaam asalaamaaleykum mbokk yi maa ngi leen di nuyu di leen ziar bëggoon ñëw defaat vidéo ci fi ñu toll ci xeex bi nga xam ne dañu ko entamé depuis ay at mais ci phase bi ñu toll depuis ay jour contre régime bi nga xam ne moo instauré injustice moo institutionnalisé dictature dans ce pays bëgg naa nag sama discours axé ko ci ñetti point bi ci jiitu mooy waxtaan ak yéen ci fan la Pastef jaar ba yegg ci fii ak yan épreuve la ñu mus a dund ak naka nañu def ba réussir épreuve yooyu face au tyran deuxième bi ma ñëw ak yéen ci ban bilan nañu mën a tirer ci xeex bi bi ñu ko tàmbalee aljuma ba léegi ñetteel bi ñu ñëw ci perspective yi ndax nag mbir yi dafa am benn suite logique boo xam ne dina tax ñu mën a comprendre naka nañu war a taxawee pour xam fan nañu jëm li si jiitu mooy fan la Pastef jaar 2014 ay sénégalais ñoo dajaloo tëju gis ne réew mi ni muy doxee baaxul ñu dajaloo di liggéey par tabax benn parti parti boobu nag li mu njëkk a imprimé ci politique sénégalaise mooy su ne d'accorduma ci ni réew mi di doxee dafay wax lu tax d'accordul c'est important partie boobu noonu ñi ko formé taxaw ci jëmmal ko ay at musuñu wane benn violence ni verbal ni physique face à un système boo xamante ne c'est un système monstrueux face à un système boo xam ne c'est un système violent est-ce que yéen a ngi fàttaliku bi ñu ñëwee attaque le siège de Pastef à Yoff digg guddi toj fa ay écran yàq ay table est-ce que Pastef réagiroon na est-ce que yéen a ngi fàttaliku bi ñu demee kër euh, waaye jur bu jigéen bu président Ousmane Sonko à Ziguinchor pour lan ne dañ fay jël ay fichu parrainage le ministre de l'intérieur de l'époque génn démentir mujj gi tribunal de grande instance bu Ziguinchor moo condamné benn nit bu bokk ci gendarmerie nationale ne dafa def voie de fait ne dafa def violation de domicile loolu yëpp dund nañ ko ci ay épreuve dem nañu meeting Kër Massar jugee fa suñu benn militante faatu muy Mariama Sagna dans des conditions troubles loolu yëpp dund nañ ko fi mais malgré tout suñu participation ci élection présidentielle 2019 bu dee am na loo xam ne moo caractériser woon suñu candidat nekkul woon lu dul ne programme la indi à travers un livre appelé Solution mais à travers un programme mais jot na liggéey ci ak sénégalais yi ñëpp xam ne lii mooy gis-gisam ci réew mi soit da ngay d'accord ak moom wala nga bañ a d'accord ak moom waaye nag am na gis-gis sur l'industrialisation am na gis-gis sur la mobilisation des ressources domestiques pour le financement de de de la politique économique du pays sur la monnaie et cetera et cetera bi ñu weesuwee trajectoire boobu noonu ba ñu ñëwee 2021 lan lañu système bi opposé mbirum mërs bëggoon président Ousmane Sonko ñu tëj ko ci viol nga xam ne mun nañ ko ci tëj ay ati at lu mu leen neex doog ko àtte te mun nañ ko ci àtte lu ëpp fukki at yoo xam ne travaux forcés la wala lu ko ëpp waaw loolu nag lan ngeen bëgg Pastef réagir lu dul taxaw temm parce que bu ñu continuer woon di wane faiblesse face au système système bi def ñuy écraser mbokk yi dama bëgg ku nekk ci yéen mu jàpp ni su Pastef continuer di exister diggante 2014 ba léegi c'est parce que moom moo ci contribuer nous avons fait énormément d'efforts xool leen ku nekk ci yéen ñaata jour la perte ci ay réunion temps boobu am na fu mu xajoon yow mi nekk ci diaspora bi wala nga nekk Sénégal xoolal ñaata yoon nga mës a cotiser par weer ci Pastef wala ci ay campagne yu mel ni bokk naa wala ay nemmeeku tour première première phase wala deuxième phase loolu yëpp effort yooyu xool leen yéen intellectuels yi nga xamante ne li ngeen xalaat pour bindal ko parti bi ci ay programme bi ci mujj mooy programme bi ñuy préparé pour présidentielle bii di ñëw plus de 1400 cadre liggéey avec plus de 36 thématiques experts yoo xamante ne fépp ci àdduna bi def ci seen xalaat yow sénégalais bi nga xam ne bokk bokkuloo Pastef mais yaa ngi daj coono bu rëy ci ci projet bi waaye loolu dafa néew par rapport ak ñoo xam ne ñàkk nañu seen liggéey parce que Pastef nañu bokk ñoo xam ne affecté nañ leen parce que Pastef la ñu bokk mais ñoo xam ne tuur nañ seen deret parce que Pastef la ñu bokk ñu ëpp ay 60 sénégalais yoo xam ne suñu gëm-gëm suñu projet moo taxoon ñu génn xeex lañu sénégalais yooyu yëpp tey ñu ñàkk seen bakkan waa lu ëpp 700 sénégalais yoo xam ne nag tey ñu ngi leen nëbb jant bi jaar-jaar yooyu yëpp bu amul woon ñu fas yéene taxaw joxe seen bakkan. su amul woon ñu fas yéene taxaw joxe seen alal su amul woon ñu fas yéene taxaw joxe seen temps su amul woon ñu fas yéene taxaw sacrifier seen liberté ñenn ñi seen confort professionnel ñenn ñi seen liggéey konoon du ñu yegg si fii li ma bëgg ñu xam mooy détermination engagement rigueur abnégation moo tax ñu yegg si fii kon loolu rek moomu tax ñu réussir l'heure n'est pas à la lassitude l'heure n'est pas au découragement loolu dafa may permettre ma ñëw ci deusième point bi mooy bilan bi ñu war a tiire parce que nag dafa am loo xam ne ñun ñoo ko war a bañ gars yi li ma leen wax lu sérieux la fi ñu jëm su ngeen seetaanee président Ousmane Sonko dañu koy faat je pèse bien mes mots parce que comme haine moo leen animé woon procédure yi ñu tijji amu ci lenn loo xam ne mun na tere président Ousmane Sonko mu nekk candidat à une élection ndax dossier bii ñu koy door a teg ci samedi bi weesu. ubbi information judiciaire lundi bii passé mais ñëpp xam nañ ne instruction première instance appel cassation xaju si dossier bi nga xam ne mooy contumace bi sotee na ñëpp xam nañ ne c'est fini d'ailleurs ñoom il n'argumente plus sur ça kon lan moo mën tere président Ousmane Sonko mu participer à une élection présidentielle xam nga lu fi des dissoudre nañ Pastef kan ci yéen moo gëmoon ne Pastef dañ koy dissoudre ils vont tuer le président Ousmane DNS c'est fini mënatul mënatul nekk candidat dañ koy sanctifier dañ koy momifier naan héros la woon bu fekkee ñun loolu lañ sor boobu lañ ko bëgg a réserver ñu wax li may wax nag su ngeen ko bëggee comprendre da ngeen dellu ginnaaw seeni tactique c'est une tactique israélienne tendant à banaliser la violence ba yow nga nem ba normaliser ko ba du la choquer loolu moo dal sénégalais yu bëri ci tëju président Ousmane Sonko bi ba ñeen ñi sax génnul parce que ça ne les mooy dañuy dañuy banaliser la violence dem leen conflit israélo-palestinien tey képp koo xam ne injustice ngay bañ boo xëyee ñu ne la bombardé nañ Palestine rey nañ fa téeméeri nit dina la choqué mais da ngay continuer naan sa café pourtant c'est des enfants pour c'est des femmes pour c'est des dégâts matériels mais parce que da dem ba yow loolu da koy dégg chaque jour moo tax bi ñu rejeté liste yi Askan Wi par le conseil constitutionnel ñit ñi génn xeex bi ñu ñëwee barricade kër président Ousmane Sonko ñit ñi toog seetaan ñu muy dem wuy ji ci procès ñu jàpp dóor ñi ñi toog seetaan ñu franchir beneen étape toj vitre oto génnee dem livrer ko këram ñi ñu toog di seetaan kenn choqué wut loolu moo tax ñu gën a ñeme muy dox ñu dóor lacrymogène ci ginnaawam mënoon na ko viser rey ko mënoon na ko fàtt moo taxaat ñi dem beneen étape au mois de mai mooy leen jël benn liquide bu dangereux bu toxique jéem ko jéem ko faat nit ñi kenn waxul loolu moo leen may fit ñu ñeme ko condamné à deux mois avec sursis daal di avancé beneen étape kenn choqué wut six mois avec sursis kenn choqué wut deux ans ferme gis ngeen mbir mi ni muy ni muy demee crescendo kenn choqué wut nga ñëw placé ko sous mandat de dépôt pour des infractions terroristes nañu toog jàpp ne régime bi am na foo xam ne du fa yegg dañuy xëy ñi ne ñu président Ousmane Sonko parce que dafay def grève de la faim faatu na ci kaso moo rey boppam. wala président Ousmane Sonko xaru na wala gaañu na naturellement bu ko defee am bi nga amoon pour jug jootoo ko amati parce que jàpp nga ne espoir bi dem na kon nag jàpp naa ni l'heure est grave li ma leen wax nii nag dama ko argumenté dama ko documenté ci li fi xew yépp ñu xam ne moment bii du moment wu bàyyi moment bii mooy moment wu taxaw ndax nag Sénégal dafa am loo xam ne daf fi war a jeex mooy xeex boo xam ne jàpp nañ ne benn fan ñaari fan la et wax. dinañ ko kaas ñaar ba ñetti fan maximum une semaine mais ils vont lâcher nous ne lâcherons jamais man ngañ Demba Touré ni ma ko waxee nii yéen ñëpp laa bëgg ku nekk waxee ko man ngañ Demba Touré di membre de PASTEF âgé de 29 ans je n'abandonnerai jamais je ne lâcherai jamais le président Ousmane Sonko je n'abdiquerai jamais face au diable face au tyran loolu laa bëgg ñun ñëpp ñu am cet état d'esprit le président Ousmane Sonko mérité wut mu nekk ci kaso bi ñun ñi ñuy calculer pour noo libertés pour noo vies pour des conforts mondains éphémères face à un système boo xam ne c'est le système le plus médiocre le plus lâche et le plus violent de l'histoire de ce pays kon nag bu fekkee seconde guerre mondiale duré na six mois bu fekkee guerre yi gën a métti ci àdduna bi am na yoo xam ne duré na fukki at askan yi nga xam ne dañoo tinki seen bopp esclavage ñaata ay téeméeri at la ko ay nit xeex colonisation ay téeméeri at la ko ay nit xeex li fi weesu tout récemment au Mali mais peuple malien ay weeri weer la xeex contre le régime de IBK gine même chose contre le régime d'Alpha Condé depuis 2018 la contestation yu tàmbali kon nag Sénégal bu ñu jàpp ne ñaar ñetti fan dafa war a jeex parce que nag mbir mi ay phase la mbir mi ay temps la même les guerres contre entre les états diggante Russie ak Ukraine nekkul chaque jour le niveau de conflit bi di yem parfois échelle bi mun na nekk 9 sur 10 le rythme et bon parfois le rythme est assez bien parce que lan cinq 6 7 sur 10 la parfois le rythme et passable cinq sur 10 parfois le rythme et faible deux 3 sur 10 c'est comme ça mais li Mahatma Mohandas di doon wax. sa ennemi du musa am assurance que gagné na la lu dul ne yow abandonné nga kon bis bu ñu wanee régime bi ne bàyyi nañu mu gën a foncé suñu kaw tëj ñëpp comme ni mu du sudree Pastef waaye li ciy tegu nag mooy faat bakkanu président Ousmane Sonko ñun ñuy toog naan est-ce que sañoon na comme sañuñu ko gis ngeen président Macky Sall ak ñi mu ànd ak lu ngeen foog ne sañuñu ko sañ nañ lu ko raw parce que ñoom participer wuñ ci conquête démocratique yi am ci réew mi notamment son ministre de l'intérieur et son participer wuñ ci benn conquête démocratique de ce pays moo tax faale wuñu démocratie bi ay inculte républicain nañ fan yi gis nañ ay yëngatu yu am solo ci gox yu bëri ci réew mi bi ñu nëbbee jant bi le président Ousmane Sonko ba léegi muy àjjuma samdi dimanche mais rawatina début semaine bi muy altine talaata àllarba ba alxames bii ñu nekk c'est le lieu de saluer kon engagement wu ndaw ñi mais sénégalais yépp yi nga xam ne quelle que soit contrainte yu am quel que soit seen nombre ñu ngi reyante ñu ngi xeex quels que soient les moyens à leur disposition c'est le lieu aussi ma ñaawlu li xew Ziguinchor parce que li fa xew lu extraordinaire la maanaam ay sénégalais paisible yu ñëw di manifester l'armée nationale ñëw ne dafay jël ay armes disproportionnées di leen ko xuppee def ay tirs de sommation waaye tir à balles réelles yooyu noonu nga xam ne ñoo am foofu terewut ñu taxaw xeex donc nag ñu ngi alerter ñu ngi artu tous les toutes les forces de défense et de sécurité tous les membres des corps militaires et paramilitaires que ñun seeni frère nañu mais am na loo xam ne du ñu ko mës a accepter parce que moyens yi ñu leen jox ay moyens la yoo xam ne dañu leen ko jox pour ngeen aar ñu du ñu nangu sous le couvert d'un régime boo xam ne ay politiciens ñoo nekk ci ginnaaw ay nit ñoo xam ne ay ambition personnelle yoo xam ne ça n'a rien à avec l'intérêt général ça n'a rien à voir avec le devenir de cette nation ñu ñuy faat wala ñu ñuy toroxal donc ñu ngi leen di artu di leen wax ni nekk leen au côté du peuple li ci des nag mooy suñuy force waratuñ ko éparpiller fi ñu jëm jot nañu def la jonction des force jot nañu def benn synergie entre l'ensemble des force qui se battent pour ce pays loolu mooy vendredi bii ñu war a jëm muy le vendredi de libération nationale mooy président Ousmane Sonko def na une semaine ci seen loxo foofu lay yem kon nag on annonce le vendredi le vendredi de libération nationale tous les Sénégalais des autres régions sont appelés à rejoindre la capitale les choses vont se jouer ici toutes les révolutions yi jeex am na benn lieu bi nga xam ne symboliquement foofu la jeexee ah venez rejoindre la capitale sénégalaise nañu ko organiser nag na am dina am sénégalais yoo xam ne amuñu capacité pour ñu coordonner ñoom mais dinañ coordonner wax leen liggéey yi mu war a amee ak fi ñuy jaar su ko defee yéen ngeen déglu moo d'ordre yooyu loolu dinañ ci liggéey en interne mais sachez que tout le monde d'ores et déjà doit rejoindre la capitale sénégalaise pour qu'on annonce un rassemblement populaire à Dakar un vendredi de libération nationale président Ousmane Sonko def na une semaine seen loxo du ko weesu du ko weesuwaat benn seconde su nekkul ci jàmm kenn si ñoom warul nekk si jàmm su nekkul si jàmm le président Macky Sall va dégager de ce pays parce qu'il n'a plus la dignité de diriger ce pays parce que assez de chaos assez d'instabilité assez d'injustice assez de dérive dictatoriale yoo xam ne sénégalais yépp a ci sonn kon nag amul benn couche sociale bu ñu bu ñuy exclure ce vendredi qui est un vendredi de libération nationale ñi nga xam ne parallèlement fas yéene nañu libération boobu ñu def ko parce que jàpp nañ ne am nañ droit dem prison daan manifester fa parce que amul benn portion territoire boo xam ne constitution bi tere nañ ñu mun fa manifester na fa am mbooloo bu bëri bu takku dem fa bu dee gis nañ ne lu war la te am na ñu ko gis te dinañ ko taxawee jour yi itinéraire bi xam ngeen fi ngeen jëm ngeen jaar foofu pour dem taxaw fa def sit ne d'accord leen ci waaye nag ce vendredi est un vendredi décisif pour rejoindre la capitale sénégalaise Les itinéraires seront communiqués en interne et tous les Sénégalais sont appelés à être vigilants, à rejoindre Dakar pour que vendredi on libère définitivement ce pays des mais yi nga xam ne ñooy mais yi gën a salte amuñu dignité jiite ko maa ngi leen di sant di leen gërëm.